responsabilité ñëpp la. loolu mooy wax bu gën a gàtt. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def wala ñoom ñoo war a yor solution yi. ñooñu la seen responsabilité ëpp ci yëf yi. joxoñ ki nga xam ne nii ci njàqale la nekk te nga xam ne amul solution. lii wala fi di wax ñàkk pexe pexe la kooku boo ko joxoñee def naa sonn la rek mu ngi mel ni rek seet ki nga xam ne dafa xaru ba pare ñu bëgg a teg responsabilité ci kawam xam loolu amul sens parce que li tax mu xaru nit ñëpp yemuñu am na loo xam ne nit dana ko daal mu muñ ko am keneen koo xam ne xelam tollul ci mu mun koo muñ ba mu dugal ko ci loo xamante ni day def lu ëpp mais jàngat bi ci gën a beneen bi ñu ci mën a def aussi mooy soo xoolee réew yi nga xam ne immigration bi foofu lay dem su phénomène yu mel nii su amee donte daf leen di jaaxal réponse bi <clears throat> elle n'est pas sécuritaire réponse bi du ci pointer responsabilité migrants yi ñëw pour ne leen yéen a ñëw donc dangeen di delluwaat da nga gis ni la réponse elle est toujours soit humanitaire ou sociale <coughs> sociale bi mooy fexe ba bon ñu ñëw nañu fexe nu ñu leen gis nga même pays yi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci wàllu du ñu accueillir immigrants yi Italie par exemple parce que mooy porte d'entrée bi très souvent fa la ñuy duggee moom li muy jàpp mooy rush bi mu am àttanu ko léegi léeg dafay dëgër surtout bi ñu amee gouvernement wu nationaliste yi nga xam ne ni ñoom nekk yoon Salvini ak ñooñu dañuy wax ni bateau yi ñëw sax du ñu leen accueillir ay militants droits de l'homme yooyu humanitaires yi ñoo leen di jël gouvernement bi ne du leen mais fi muy mujjee lu mu metti metti metti metti dañ leen di mujjee accueillir donc réponse bi du sécuritaire du pointe ay responsabilité jàmbur à part nga xam ne nii ñoom ñoo war a def pour trouver la solution parce que bu ñu tàmbalee débat bi ci réew mi di wax ni way jur yi la mais dafa mel ni xamuñu ñun immigration ni muy fonctionner parce que ku sañ a taxaw yaakaar ni parent bi nga xamante ni moo fayal doomam pour mu dem foofu rek la ko teg mel na ni moom jàngatul immigration parce que fii da nga fiy gis ay ne kër lëmb ñu cotiser pour benn nit mu dem mm-hmm. li leen ciy dugal nag yaakaar la ñaar moo am ñi jàpp ni jël gaal jël mbëkk mi xaru la ak ñi nga xamante ni jàpp nañ ni bu dee amee kenn ko war a rëcc sax moom mii la war a doon te effectivement neexu la wax mais am na ay cas de belles histoires de gens mhm. yu jaaree ci mbëkk mi ba nekk ci li ñu nekk d'ailleurs image boobu souvent mooy ñëw ci nit ñi ah moom fi la jaar ba dem mhm. tekki na ma ngay <coughs> gor yat donc man tamit mën naa fa jaar loolu moo gën a fort image bi nga xam ne ñun moom la ñuy bëgg a joxe toujours naan leen. fële yombul fële yombul fële yombul non ñun gisuñu ni fële yombul fële neex na parce que am na ku dem. ba yàlla ubbil ko bunt. Euh, soo sauf que peut-être que est-ce euh, def nañu comparé nañu par exemple soo jëlee mille candidats ña ca tekki boobu ñaata lañ soo demee matuñu fukk de. mën na ko yées sax mais mooy li ma wax kii nekk ci yoon. li muy gis mooy bu dee kenn mooy réussir yàlla dina def man lay doon sax di amatul sax discernement da ngay toll situation boo xam ne mu ngi mel ni kii xaru amatul discernement. loolu mooy roulette russe. waaw nga jël <laughs> fetal dugal ci ñetti bal. mais moo tax gis nga kooku soo ko accablé soo ko accablé réglé woo problème bi lan moo tax xale bi nga xam ne jàpp nañ ko di ko indi. muy tëkku sax ñu koy indi man leer na bu ngeen ma bàyyi damay delluwaat. Mhm. xam nga kooku toll na foo xamante ni nii boo ko bëggee ne da ngay xaru réglé woo problème am parce que yëgul loolu li muy dund mooy li muy gis ak li nga xam ne moo ko bëgg a jëlee njàqare cest di dire réponse bi xool rek la naka la ñuy def ba njàqare gi nekk ci biir réew mi jóge fii euh, nekkuñu ci situation wu guerre parce que souvent vague immigration yi mmh, mmh, pays de guerre lay am très souvent nag bu ñu jàngatee ci tarixu d'ailleurs ñiy dem sax bu ñu jógul ci pays guerre bu ñu demee nationalité pays ba nekk en guerre moom la ñuy joxe pour ñu considérer comme ay réfugiés statut yooyu réew mi nekkul guerre mm-hmm. tolluwul ci situation boo xam ne xëy na danañ ne désespéré nañ li fi nekk ci potentiel te ñu ne woon bu ñu génnee ci Covid bi danañu ci dox mais nañ ci xuus. Mm-hmm. Mm-hmm. très bien donc ab la Ablaye peut-être mais bu ñu jëlee rek kaaw Doudou Sène bi masawaat encore une fois yaayam. Euh, ku nekk xam na histoire am ni mu triste yaayam moo ko yoroon di góor góor di ñafe papa ji ñëw jël ko yóbbante ko mel ni ko yóbbante sa marchandise dugal ko ci gaal mu dem euh, kaaw duudu moo mais yàgg nañ wax ne gis nañ ay xale ñu leen di dugal ci gaal bi loolu euh, du est-ce que du waajur yi rek tamit ñoo ñi koy def ñu baal ma ñoom ñoo irresponsable loolu moom def naa kenn sañul encourager parents mhm. surtout nag kaaw xale xale moom bokkul ci dugg ci gaal mhm. mag sax mën nañ ko discuter mais xale moom xale boo xam ne aussi amalul boppam responsabilité cest à ki yor responsabilité bu dee yàqu jël dugal ko ci gaal loolu moom defe naa ni loolu loolu loolu jéggi na sax lu ñu mën a xalaat ci nit lu tax mag mi defalu ko boppam parce que xam na xay na risque bu ci nekk parce que moom moo gën a yeey ci defi ko bu tollee ci diggu dooleem bon ba léegi bu dul mag mu màgget euh, ba komor donc loolu mais loolu ay cas mun na ne kaawu xale boobu bu 14 ans peut-être ay cas isolé la ci ni mu demee ci ni ko bàyyam jëlee ci ni ñu ko waxee yóbbu ko dénk ko gars yi ñu yóbbu ko mais souvent nit ñi ñooy volontaire ñoom ñooy am yéenewu gor yet teral seen i wayjur souvent wayjur bi du yëg sax te xale yi aussi c'est-à-dire vague immigration bi li nga ci gis mhm. mooy jot encouragé wuñ kenn nag ci def ko mais souvent li tax mu koy def mhm. mooy tekki yoonu tekki nag boo ci nekkee di ko wër yow doo gis lu dul la nga xam ne nii noonu nga cay demee lépp luy gàllankoor da ngay yaakaar ni mën nga ko surmonter dem parce que bu ko sa morom defee nga yaakaar ni mën nga koo def discernement foofu day. Hmm. mais Ablaye xam nga suñu jógee suñu jógee ci affaire mbirum responsabilité xam nga tekki ñu ngi wax tekki. Euh, processus la boo xamee ni dañ koy commencé sa ndorteel ga mais da ngay gis par exemple parent boo xamee ni jur na ay doomam euh, defu ci li ci war xaar ba xale bi dem ba màgg léegi mu bëgg mu tekki ci ci ci ci lu gaaw te tekki ci lu gaaw boobu dugg ci Euh, gaal yi la ko la koy gisee par exemple xam nga loolu pour nga imputer ko gouvernement tamit day jafe parce que koo xam ne ba mu juddoo ba léegi deful dara pour tekki ba pare bëgg jékki-jékki rek nga jox ko liggéey mu tekki te fekk la la mu waroon defu ko. lii lay gis mu mo solution bi lay jàpp ni moom moo gën a gaaw kooku responsabilité ak i responsabilité euh, mbokkam tamit mënul mënu ci génn. suñu modèle social moo bindoo noonu xëy na mën nañ def inventaire suñu modèle social dañuy jàpp fii société mooy te am nay avantages yu bari. boo bëggee nag ñu bàyyi boobu dañuy dem ci société bi nga xam ne responsabilité plen et entière parent bi la moo jur doomam moo koy tette ba mu nekk mag mais loolu li muy indi indi société individualiste yi nga yaakaar ni sa doom yow rek la yaa koy tette yaa koy yóbbu yaay def ci moom mais ñun modèle social bi ñu am mhm. société bi mooy yar ñépp ci bokk am nay avantage yu bari mais soo taxawee rek ci ni nga xamante ni noonu la euh, phénomène migration bi di doxee réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo leen di accueillir gis nga fii par exemple balaa ñu jëm ci réew yi leen di accueillir fii fii par exemple li fi nekk mooy atelier da nga naan jël sa doom mu bëgg mu jàng métier looy def da nga koy dénkaane mm-hmm. patron ba du ko jàngal métier rek da koy da koy def nit da koy yar ñu bëri ci atelier la ñu yaroo dañ leen teel a dénkaane pour jàng métier am na fii programme yoo xam ne xëy na jàngat nañu ni apprentissage warul demee noonu rek léegi tey jël sa doom dénkaane ko am na ñoo xamante ni nii dem nañu ba mën li seen njaatige liggéey mën mais mënuñoo beru mm-hmm. am na ñoo xam ne ci nekk apprenti la ñu presque dee mosuñoo beru te pourtant liggéey ba ñoom ñoo koy def da ngay gis atelier boo xam ne mais patron ba xëy na yar na ay xale yu bëri def ci ñoom vraiment mbiri àdduna yu bëri mais mosuñoo mën a beru programme yooyu am na par exemple lu ñuy wax PEJA programme d'employabilité des jeunes par l'apprentissage li muy soppi par exemple mooy apprentissage boobu mu bañ a doonati loo xam ne nii de façon pérenne la c'est-à-dire nit nekk ci apprentissage te du mës a ber ak it ka nga xam ne njaatige liggéey la buñ ko dénkee ay ay xale mu bañ a doon rek dama leen di jàngal te jëlewuma ci dara parce que souvent nag loolu mooy problème bi njaatige bi yor ay apprenti moom fayuñu ko loolu dénk ko muy charge ci moom léeg-léeg sax apprenti yi da ngay gis ni ci kër njaatige bi la ñuy dëkk am na fi loolu yëpp bu ñu ko buñ ci taxawee def ci programme yoo xam ne xëy na kay jàng dana am processus bu mu valider bu amul diplome sax dana am processus de validation des euh, acquis de l'expérience xam nga loolu équivalent diplôme la dana ko may mu génn ci situation bi nga xam ne nii précarité wu employabilité la parce que nit boo amul métier xalaatoo liggéey parce que léeg-léeg nga ne nit nit ne la bëgg naa liggéey loo mën mu ne la loo ma jox rek xam nga loolu jëmul kër mais loolu